bika yaa muin wa bika nastain wala hawla wala quwata illa billahi al aliyi al azim noo ngi tàmbalee suñuy kàddu ci sant suñu borom ñi nga xamee ne moo ñu xéewale ñi fekke woon jataay bi daaw fekke waat koron ndondal yoonu murit ak naka lañ ko war a sàmmee noonu mooy thème bi loolu nag dañ koy séddale ci ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi danañ wax ndono ci lislaam mooy lan buñ paree danañ ci teg ana lan lañ tudde ndonol yoonu murit lan lañ ci jublu buñ koy wax buñ paree teg ci ana naka lañ koy sàmme ba ñi nga xamee ne ñi ngi ñëw ñi mën leen koo jox na mu gën a rafete bu ñu ko jataay bi maye itam danañ wax Cheikh Mouhamadou Lamine Bara radiallahu taala anhu naka la jëmmale woon euh, sàmm googee ak naka la ko doon dunde alxifaasu ala turaas yi mooy mooy teemu waxtaan wi turaas nag buñ koy wax buñ delloo ci arraagib al asfahaani nee na turaas mi ngi jugal eh, mi ngi jug eh, cosaan li waaw la woon wuraas ñu soppi taagi waaw ak alif di wax turaas waaye wuraas moo nekkoon cosaanul baat bi bu delloo ci alquran danañ fa fekk baatu turaas wa taakuluuna turaasa aklan lamma wa tuhibbuuna almaala xubban jamma suñ boroom mu ngi wax naan da di lekk ndono li nga xamee ne moom lañ leen fi bàyyeel lekk gu metti waaye da bëgg alal lool kon loolu aw ŋàññi la ci ñi nga xame ne ñoom la xitaab bi jublu ndono nag buñ ko waxee liñ ci jublu mooy moomeel boo xame ne dafa tuxoo ci nit ñëw ci ci koy doon ak moomeel boo xamee ne dafa toxoo ci jëmm ñëw ci ki koy donn ci lu dul contrat boo xamee ne am na fa kon alal ji nga xamee ne moo toxoo ci nit jëm ci nit moom la ñu tudde ndono kim toxoo ñëw ci moom moom la ñuy tudde ki nga xamee ne moo donn alal ja noonu la ñuy waxee ne mënees naa wax ne donn naa alal ci nit waaye mën naa wax mën na wax na donn naa nit diw donn naa ko wala diw donn naa alalam moo tax alxuraan di wax ne wa warisa suleymaanu daawuda nee suleymaan donn na waajuram seydina daawud ba tey mënees naa wax ne donnu le ma nàngam donn le ma nàngam alquran mi ngi wax naan wa awrafnaha bani israila firawna ak ñam ñam àndaloon ban bewee ba suñ borom alag leen nee na xéewal ga nekke woon dama ko donnale banu israil sëriñ Touba itam bu delloo ci ay mbindam danaan fekk mu naan yàlla donnloo na ma téere bi alif lam mim bu mu koy firi aw rasani alkitaab aw rasanillahu alkitaab ba tey képp koo xamee ne yàlla daa def nga am alal joo xamee ne sonnoo ca defoo ci benn coono yàlla jotale na ci ba tey dees na wax nag dafa donn alal ji yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bu ñu delloo ci alquran dañuy fekk ñuy ñaan njaboot boo xamee ne dana leen donn suñu borom mi ngi wax ci lisaanu Seydina Zakaria fahab lii min ladunka waliya yarisu nii wa yarisu min aali yaquba wajaalhu rabbi radiya mi ngi ñaan suñu borom mu may ko ak njaboot boo xamee ne dana ko mën a doon waaye liñ jublu ci ndono li ñoom yonent yi liñ jublu ci ndono yi du alal ndax ñoom alal amutoon euh, valeur ci ñoom alal dañ koo xeeboon moo taxoon keneen ci ñoom du ko njëkkante waaye liñ doon ñaan ku leen ko doon mooy yonante gi ak xam-xam bi ñu yoroon ak ngëneel yi nga xamee ne moom lañ làmboo woon kon fu ñu déggee yonante di ñaan suñu borom mu may ko doom di ko doon la mu bëgg ñu doon ko du alal waaye la mu bëgg ñu doon ko mooy xam-xam bi nga xamee ne moom la amoon wala yonenti ga wala ngëneel ya wala valeur yi nga xamee ne moom la jikkoo woon te loolu li ci firnde mooy wax ji suñu wax ji Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa wax ni inna maa maachar al anbiya la nuuras maa taraknaahu sadaqa nee na ñun mbooleem yonent yi kenn duñu doon lépp luñ fi bàyyi ci alal sadaqa la dañ koy saraxe loolu amuñu ko firée ne ñoom liñ bàyyi mooy xam-xam xam-xam boobu sarax la ndax ñëpp ñoo ci yem ku góor góorgóorlu rek mën ngaa jot ci xam-xam bi nga xamee ne moom la fi yonent bàyyi ba tey alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ne wa inna al ulama wa inna al ulamaa warasatul ambiya lam yurisu dinaaran wala dirhaman walakin warasu al alima fa man axadahu axada bi xadin waafir nee na boroom xam-xam yi ñooy ndonoy yonent ndax yonent yi donulowun bàyyiwun alal donulowun alal donulowun dinaar wala dirham waaye liñ fi bàyyi ngir ñu donn ngir ñu donn ko ci ñoom mooy xam-xam nee na képp koo xamee ne jël nga ndono loolu nanga nga xamee ne am nga cër bu mag cër bu rëy bu delloo ci alxuraan dañuy fekk suñ boroom di melal boppam wane ne moom mooy donn àdduna ndax àdduna lépp day jeex suñ boroom rekk mu mujj fi nekk moo tax bokk na ci meleel suñu boroom yi nee na maay donnu àdduna walillahi miraasu samaawaati wal ard ndonol àdduna ñeen na yàlla ndonol àdduna ci suuf wala ci kaw bu ñëwee ci che cheikh cheikhina cheikhuna cheikhul xadim radiallahu taala anhu ana moom naka la jàppe ndono ana ndono lan la fi bàyyil moom naa ahmadul xadim moom dafa jaar ci yoon wi nga xam ne moom la yonent ci jaaroon dafa jël alquran ab sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko alalam alal ji nga xamee ne du jeex ba mukk waaye def ko ndonaam ndonaam gi nga xamee ne day sax ba faaw bu delloo ci ay mbindam dañuy fekk muy wax ne qiraatuha kanzi wa jaahi wa izzati uniltu biha kawni ladallahi daa sidqi nee na jàng alquran mooy sama alal mooy alal li nga xamee ne moom laa am mooy sama trésor mooy sama daraja mooy sama tedd nga daraja ji ma am nga xamee ne moom yàlla rek moo xam nam toll nee na ci alxuraan laa ko bi alal ji nga xamee ne moom la doon ca moom la cay sax mooy alxuraan ak xadis bi xidmatil quraani wal xadisi yasbutu laa bi dahabin mawruusin foofu nag mën na noo laaj ana lan mooy ndonal yoonu murit bu nu waxee ndonal yoonu murit ana lan lañ ci jublu gëstukat yi nga xamee ne ñooy gëstu ci yoon wi ku demee ne ka Cheikh na Abdul Wadud nee na ndonal yoonu murit mooy lépp loo xamee ne Serigne Touba bind na ko wala ñu askanale ko Serigne Touba moo xam ay wax la wala xalaat la wala lépp loo xamee ne ña àndoon ak Serigne Touba ba am ngërëmam bindoon nañ ko. wala ñu askana leen ko moo xam ay wax la wala ay xalaat la wala ay jëf la kon mën noona wax ne histoire yoonu murit dafa bokk ci ndonal yoonu murit bu nu waxee yoonu murit histoire am ci ndonal yoonu murit la bokk waaye jaar-jaaru Serigne Touba itam ci ndonal yoonu murit la bokk ak jaar-jaaru mag ñi nga xame ne liggéeyal Sëriñ Tuubaa ba làq ngërëm yoonu murit nag mën na noo laaj ana lan lañ ci jublu yoonu murit mi ngi jugati baat bi mi ngi jugati iraada al iraada mooy bëgg dara ci sa xol bëgg dara wala jublu dara ci sa xol wala namm dara loolu mooy iraada waaye ci lislaam al murid wala iraada mooy koo xamee ne ay jëfam daf caa bëgg ngërëmul yàlla ngërëmul yàlla la namm ca la muy def namm ca àdduna ndax kuy jëf benn ñaar moo lay tax def benn àdduna tax lay def wala yàlla tax lay def minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al axira suñ boroom nee na am na ci ñoo xamee ne la tax ñiy jaamu yàlla ak la tax ñiy def adduna tax koom-koomu adduna moom lañ yéene ca la jëf waaye am na ci ñoo xamee ne nag tuyaabay suñ boroom ak alaaxira moo tax ñiy jaamu yàlla kon buñ waxee almurid ci lislaam mooy koo xamee ne ay jaamu yàllam ak jëfam daf caa bëgg ngërëmul suñu borom daf caa bëgg tuyaaw yoonu murid nag mën nañ koo me mën nañoo wax ne mooy woote diine bi nga xamee ne moom la Cheikhul Khadim doon woote te jublu ca yeesal lislaam ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa ak yoonu gaay ya baaxe ya gaay ya nga xamee ne seen yitte ak seen bëgg-bëgg mooy ngërëmul suñ borom mi ngi ko yëglee ca Mbàkke Kajoor ama asachine 1301 ci gàddaay bi foofu la déclaré woote boobu dëppook ca daara jaa nga xamee ne moo nekkoon daaray waajuram Maamoor Anta Sali yàlla nga ko yàlla yokk ngërëm yoonu murit kon mën noonu wax ne du tariqa waaye day yeesal lislaam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 ndax moom xaadimu rasul la tudde day liggéeyal yonant bi di liggéeyal jullit ñi samaytani qataan bi abdika alxadim yaa man yaqulu li busharatin tadum nee suñu borom moo ko tuddee al abdul xadim jaamu yàlla waaye di liggéeykatu yonant bi sallallahu alayhi wa nee na bokk na ci li ko suñ borom bégalee mooy dane ko sama soppe nga sama xarit nga waaye itam kuy liggéeyal yonent bi nga faraxani akramu tafrixan yadu bi annani xillun wa xibbun wa xadim la mujj ci ponk yoonu murit mooy teggin yoo xamee ne suñ borom daf koo gërëm al aadaabul marbiya teggin du jar ma ci ma koy baamu ndax waxtaan wi nu mujj def rek ci ay teggin lañ ko defoon te sëñ Fallou Bousso Thierno yàlla na yàlla yokk ko xam-xamam leeral ko ba mu leer nañ ci xel yépp teggin dafa am teggin yu feeñ am teggin yu nëbbu teggin yu feeñ yi mooy nit ki gëm suñ borom gëm gu mat bañ koo bokkaal ak kenn xam na suñ borom kenn la ci jëmmam kenn la ci ay meloom kenn la ci ay jëfam kenn du ko bokkaale waaye itam mu fexe ba fàggu ngëneel yi nga xamee ne moom na suñ borom santaane fóotub xolam ci jikko yu nga xamee ne suñ borom daf koo ŋàññ loolu mooy teggin yu nëbbu yi waaye teggin yu feeñ yi nag mooy ñu rafetal suñu jëflante suñu diggante ci ni ñuy nuyoo ni ñuy waxe ni ñuy doxale ñu rafetal loolu mooy al adab al mardiya nit ñu ko waxee nag ndonal yoonu murit mooy lépp loo xamee ne suñ borom daf lépp loo xamee ne Cheikhul Khadim daf koo bind walla ñu ne ci Sëriñ Tuubaa la moo xam ay wax la wala ay jëf wala ay xalaat Sëriñ Tuubaa nag li mu bind suñ borom daf am lu mu ko ci jagleel daf ko cee def daf ko cee defal ay may ndax nee naa sama mbind day wommat murit bi di ko àggale ca su yàlla yaquudu xattiyal murit lil qaadiril baaqil murit muzaxzixan kulla marit ila siwal muallami mi ngi dellu wax ne taalif li ma bind suñ borom daf cee dugal mbootum laa ilaha illallah kon képp koo xamee yaa ngi wërd turu suñ borom na nga xamee ne jàng téere suñ cheikhul xadim moo gën a gaaw ci nga àgg ca suñ borom ila tawalifi yaqudullaahu asrara la ilaha illa allah ngi dellu wax ne tuwassilu aqlaami ila llaahi aabidan bila xalwatin wallahu abqa kama agna nee na sama mbind day àggale nit ñi ci seen borom ci lu dul muy soxla di wéet walla di dugg xalwa kon yooyu buñ ko toppoon man nañ cee wax yu bari yoo xamee ne Serigne Touba day wax li nga xamee ne moom la ko suñ borom may ci ay ngëneel ak yiw ak barke ci ay mbindam li Cheikhul Khadim bind itam mën nañ koo xaaj ñaari xaaj xaaj bu njëkk ba li nga xamee ne def koo bind te jëmale ko ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi ak jullit ñi di leen jàngal seen diine waaye di leen gindi di leen wan yoonu siraatal mustaqim waaye di leen ci tarbiya ci gàttal mooy téere yi nga xam ne suñu bor Cheikhul Khadim daf koo def ngir yeesal ci lislaam yeesal ci xam-xami lislaam yi lu demee nag tawxiid xam-xamu tawxiid wala xam-xamu fiq wala xam-xamu tasawuf wala yu demee noonu sëriñ Baara géej la woon ci xam-xam waaye roykaay la woon ci ragal yàlla li ko ko mayoon nag mooy fan ko waroon a jaarale dañ ko faa jaarale ginnaaw ba mu jugee ci waajur yu sell ndax doy na rek nga ne Sëriñ Tuubaa mooy sa wax na ne bi mu jàng Sëriñ Tuubaa moo ko dalal alquran jébbal ko sëñ daam Abdourahman loo mu jàngal ko xam-xam waaye li ëpp ci lim jàng ñu ngi ko jàng ci maam Thierno Ibrahima Faty sanc na ay dëkk yu bare waaye bind na ay téere yu bare bokk na ci téere bi mu bind téere bu naan al bunyaan bind na ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett jëmbal ko Serigne Touba te ku ne xam na alquran fi àgg Serigne Touba wilaay bi ni ma ko waxee la ko jur mooy dafa nekkoon jaamu yàlla jaamukatu yàlla ndax bu ndelloo ci alquran ñaari melo la andi ci ab wàllu yu am na nee na ñaari yoo xam ne boo ko dajalee rek wàllu yu la ala inna awliya allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuuna alladina amanu wa kaanu yattaquun suñ borom nee na ñaari mbir yi boo ko dajalee rek wàllu yu moo xam métti moo mën di nekk nag benn bi mooy gëm yàlla gëm bu wër bañ ko bokkaale kenn. ba ca des mooy ragal yàlla ragal yàlla mooy lépp lu la suñ borom sant nga def ko nam la ko sante waaye du la gis ci lu muy tere Sëriñ Tuuba loolu noonu la yeesee lislaam waaye Cheikh Mahmoud Lamine Baar itam yàlla nañu ko yàlla fayal yoon woowu la nekkoon kon foofu leen yemale suñu kàddu di jéggalu bu baax ci guddaay bi xam na ne borom mi xam-xam rek ak ñoo xamee ni ñoo gën a xam li may wax foofu ñoo fi nekk waaye nag e, topp ndigal rek moo tax ñu ngi jéggalu bu baax lépp lu ci jub ndimbalul suñu borom la lépp lu ci dëng ci ñun la wasalaamualeykum wa rahmatullah